asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ànd ak ñun ci Maoul Hayaat TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan sunu boroom tabaaraka wa taala yàlla noonu yàlla boole jéggal ñu ngi dikkaat ak yéen ci jotaay ñu baaxoo di ko amal di ko ànd ak yéen ci biir weeru safar gi di ci waaje màggalu Tuubaa gu tedd gi muy bés bi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa woon ab jaamam ba mu ba noppi itam mu di ko fay ndax inna allaha la yudiu ajral muhsinin sunu borom moom kum liggéeyloo rek dana la fay kon ku mu narta fay rek du la liggéeyloo di jaare ci kàddu yu nuyoo yooyu di nuyu cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo toogee jataayub cheikhul xadim di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool tem ànd ak wér sunu borom wéral ay cëram te yokk ay tawfiqam te mbooleem ay naalam ci yoon wi sunu borom defal ko li ci kaw ak njortan te nu ànd ko ak moom di ko ñaanal mbooleem jabatug sëriñ bi ak mbooleem cheikham yi ak mboolem yoon wépp waaye di nuyu ak a siyaar ak a ñaanal sunu sang bu tedd bi Maulana Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat di ko ñaana sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér sunu borom yokk ay tawfiixam sàmm ko sàmmal ko njabootam aar ko aaral ko njabootam waaye yàlla mottali mboolem ay naalam ak ay mébétam ndax ay naalam yëpp ak ay mébétam dara génn ci lislaam dara génn ci njàngaleem Cheikhul Khadim jotaay bi tey mbokk yi ñu ci dikkaat di ci sanc yi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu sanc na ko muy ay barab yoo xam ne la taxoon mu sanc ko mooy jaamu yàlla mooy wéetal yàlla mooy topp yàlla mooy kennal yàlla ndax ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi gane jamono ca makkatal mukarrama dëkkoon foo ko ay waajuram ak ay maamam waaye itam sunu boroom dogal na wooteem ma nga sottee ca madinatu munawwara naam am na ñu ko gëmoon ci waa Makka. waaye nag teewul na jege woon na Màkka gàddaay dem ma dinatul Madinatul a kon loolu yàgg na ci ab yonent yàgg na itam ci nitu yàlla ngir mu jóge ci barab dem sañ ci beneen barab loolu la koy indi nag mooy li sunu boroom def ci moom te mu war koo def ci ay jaam li sunu boroom def ci moom te mu war koo jàlle ci jaami yàlla yi ala kulli xaalin il faut mu am jaam yoo xamante ni ñooy ànd ak moom taqoo ak moom ngir mu mën a def ci ñoom loola kon loolu moo bi ngeen di dégg ne kat sànc na dëkk sàngam wala sànc na dëkk sàngam wala sànc na dëkk sàngam waaye bu doon moom ci jëmi boppam ak coobaree boppam rek mën naa bañ a génn dëkkam wala boog mën naa bañ a génn mbàkke bawol waaye da ngay gis ne way juróom bi di sëriñ Mor Anta Sali daanaka sëriñ bi moom ñetti weer jàpp ñeenti weer rek la am mbàkke bawol jóge foofu dem feneen kon noonu la sëriñ Mor Anta Sali doon wëre ngir am espace boo xam ne dana nekk ngir ñoŋal xam-xamam ngir ñoŋal diinam waaye sëriñ bi itam noonu itam la sanc ay barab yu bari itam ngir ñoŋal xam-xamam ngir ñoŋal diineem waaye ngir jàllale li nga xam ne loolu suñu borom def ci moom mu war a yegg ci jàmm bi kon sëriñ bi ni ñu ko xamee ñun ñëpp rek ci ak njaalbeenam noonu la nekk ak juróom ba ni mu génnee àdduna mu toog toogaayu sëriñ Mor Anta nag di jàngale ndax sëriñ Mor Anta Sali mi ngi génn àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram tolloog atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy 1299 ci gàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko doon toll nag ci atum tubaab mu nekk le 20 décembre 1881 kon ci at moomu rek benn at la ci sëriñ bi teg daal di nag woote li nga xamante ni moo di yoonu mu murit nga xamante ni sëriñ bi tarixa yi fi fekkoon lu ci nekk dafa am kiñ ko doon askanale mooy ki nga xam ne moom moo ko woote الطريق التجانية day delluwaat ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu a tariqa al qadiriya dafay delluwaat ci Cheikh Abdul Qadir al Jilani kon mën ngaa jël tariqa yooyu yëpp noonu lay delluwaat waaye sëriñ bi nag ki soobu ci tariqa nag moom mooy kan mooy al muridu mooy kiy xeeñtu yàlla te di ko wut moo tax mu wax doon wax ne isil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani xaysu qasada murid mooy ki dëgmal sunu borom te di ko xeeñtu te di ko wut kon sëñ bi bu sancee yoonam bi tuddee ko al muridu wala bok al muridiyatu kon boobaa day wane kat kon kuy xeeñtu yàlla rek ci nga bokk ak sa melokan lu mën a doon tubaab nga nit ku ñuul nga ak lak, wooy mën a làkk yow daal te ndeem yaa ngi xeeñtu suñu borom rek bok nga ci ñi nga bi kon ci 1882 jàpp 1883 ci la sëriñ bi nag sanc yoonam bi booba nag moom ña àndoon ak ñoom nekkatul ñoo xam rek xam-xam rek di waaye dañuy eh, jaayante ak sëriñ bi yu ànd ak moom nag di topp ci gannaawam kon faw sëriñ bi dana am ay barab yoo xam ne fa lay nekk nekk fa ak ñoom ndax itam dañuy wax ne kat yar ci yoonu yàlla dafa laaj ak taqoo kon nit ki pour nga man koo yar il faut nga taqoo ak moom pour nga taqoo ak moom itam il faut nga am espace boo xamante ni foofu ngay mën a nekk ak moom diko ko digal muy def di ko tere muy bàyyi di ko jox ay lawraat yi mu war a def ba nga xamante ne nag da ngay fóot jikko yi nga xamante ne baaxut ci moom nga ràngal ko ay jikko yu baax jikko yu sell bu ko defee nag mu mën a teewlu màggub sunu borom tabaraka wa taala kon bi ñu gisee rek ne sëriñ bi tàmbale na di woote nit ñu bari tàmbale di ànd ak moom ñu gis ne nag day am na ñu fi nekkoon sax nekk ay kilifa diine yàggoon fi lool waaye nit ñi gëmee sëriñ bi di ko topp ñooñee seen i taalibe gëmewuñu leen noonu waaye itam ñu gis ne itam chef de canton yi ak chef de province yi ñoom itam seen jafe moo nekkoon kon serigne bi mi ngi fi te ñi andal ñom ñi ngi fi te ñom ñoo di chef de canton yi ak chef de province yi ñom ñoy laaj impôt di ko jox tuba bi kon ñi and ak serigne Touba kat ni ñu ko gëmé ni ñom lu ñu liggéeyati mom rek lañ koy jox bëggatuñ dara ci seen bopp bëggatuñ alal bëggatuñ jabot bëggatuñ dara ñom waawu serigne bi la déglu ndigali serigne bi la déglu kon dañuy gis ne kat dafay mel ni ñoom seen intérêt day tambalé bëgg a wu ak ceddo yi ak buur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon tam ñoom bëgguñu lislaam tasaaroo kon nga gis ne sëriñ bi kat ñett ñooñu la jàmmaarloo woon kon il faut que mu am cadre de vie bu dal boo xam ne fa lay mën a joyal fa lay mën a euh, yaatale li nga xam ne moo di wooteem bi kon noonee nag la sëriñ bi di sancee li nga xamante ne mooy barab yi mu sanc barab bi ci jëkk mooy fi nga xam ne moo di daaru salaam daaru salaam mooy barab bi sëriñ bi jëkk a sanc muy suuf muy fàgguteef goo xam ne moom moo ko amal boppam donnewu ko ci ay maam waaye da ko fàggu ngir lan ngir mu mën caa jaamu yàlla nga xamante ne daaru salaam booba mi ngi nekk ci euh, euh, soowu mbàkke bawol nga xamante ni woo ci bët gànnaar nga xamante ni diggante ak mbàkke bawol daanaka ci ñetti kilomètre lay toll kon bàyyi na suuf si nga xamante ni fa la a jamono ñëw sanc suuf soo xamante nag foofu nag moom da koy def ardul ibadati wal islaahi nga xamante ne foofu ba ba mu fa ñëwee rek booba nag ñi mu nga ñi nga xamante nag ñoom ñoo jaayante ànd ak moom gëm ko wóolu ko yaakaar ko ñooñ la fa àndal waaye nak bayyi woon na gannaaw nak njaboot gi nga xam ne moom la donne woon ci sëriñ mor anta sali mooy ñi nga xam ne ak jàng moo leen taxoon a jóg ndax booba ndigal li wàcc na ci rabbi bil himma kon ci tijim leen war a yar nag il faut mu taqoo ak ñoom kon nag mi ngi sanc daaru salaam ci atum 1304 1304 ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ak atum 1886. kon nga gis ni rek ci ginnaaw bi euh, Serigne Mor Anta Sale génne àdduna moom daanaka ñeenti at la ci teg ñaari at la ci teg woote yoon wi toog ci ñeenti at nag dem beru ak mbooloom di leen yar ci sunu yoonu sunu borom tabaraka wa taala waaye bu ñëwee ci tur bi nga xam ne moom la Serigne bi tuddee barab boobu te mooy daaru salaam yi mooy kërug jàmm mooy kërug xéewal kon da ngay gis ne kat lañ du doon ruuma daal digganteem ak tubaab bi ne moom kat daa bëgg a jihaad moom kat daa bëgg a song tubaab yi boobaa loolu kon barabam bii mu sanc rek tur wi mu ko tuddee day dàq tuuma yooya moo tax bi ñu ko waxee ne da ngay jihaad mu ne waaw damay jihaad waaye nag dangeen may laaj ci an ban anam laay jihaade inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa man ci xam-xam laay jihaade ak ci ragal yàlla kon nga xam ne kat dund nit ki bu ko jeexalee ci lu dul ak ragal yàlla rek lu mu mën a jeexal dundam gi amul njariñ kon motax fi ni rek bo fa tambalé da ngay gis ni kon mom tel na tracé itinéraire bi nga xamanteni mom lay jël ngir xam fi mu bëgg jëm kon daru salam gogu itam mu nekkon barab bo xamanteni barab bu bëggoon la ndax lan neena dama ko sanci ngir jaamu yalla awuma leneen luma ci fàggu defumako ngir tol bu may beye limay duggal sama pos defumako itam ngir damay dabu suuf sama maam ay dama ko def ngir ne dama caa bëgg jaamu yalla kon da ngay gis ci nitu yalla yi ba ci sunu sang bu tedd bi da ngay gis mu ñu ne kat euh, fatxul mubin kat man kat dama caa jaayante ne lu fa génn rek dama koy dellowaat sunu borom kon ñoom yàgg nañu di jaayante seen diggante ak seen borom ci leen sunu borom jox ci ay teraanga ñu seet foo xamante nag foofu lañ koy jëmale ci seen diggante ak sunu nga xamante ni euh, mag ñi nett nañ ni sëriñ bi de wax na leen ni bi muy sanc daaru salaam nee bi muy bind daalug daaru gi ak bi muy gën raa raawug salaam gi. new na leen day fii day barab la boo xamante ni ku sunu borom nar te texeel war nar te faj sa aajo doo fi teg sa tànk kon nga gis ni rek sëñ baa ngi di wone ak xar baax ci nangul ak wuyu ci gi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala wuyu si na ko waaye itam daaru salaam nekk barab boo xam ne sëriñ bi def na fa ab biir mu tàmbalee xat ndax njaboot gaa ngi commencé yaatu ñu bari ñi ngi jaayante ak sëriñ bi wax nañ ne sax daaru salaam dafa meloon ni comme yoonu marché ni fa nit ñi di bàggante di dugg ko génn bes bu set rek mbolo mi dañu ñew ngir aju ci señ bi ngir jébbalu ci mom waye ñi soxla leen tax ñi tam dañu ñew dañoo ngir nemmeeku bi rek ñi tam ñew ngir am cofeel ci mom non nak la señ bi wëlbatiku euh, daal di fay bàyyi mam Cheikh Anta Mbacke dem ci fi nga xam modi toba ko nga gis ni ñaarelu dekk bi nga xam mom la señ bi sancaat ginaaw daru salam moy toba Touba bobu tam sëriñ bi mi ngi ko ci atum 1306 tolloog atum mille 1888 maanaam ginnaaw bi mu sañcee Daaru Salaam ba ca déwén sa wala boog ba mu am ñaari at kon bu fekkente ni da ngaa jàpp ne kat xëy ginnaaw gi ñaari at la su boobaa 1888 la waaye bu fekkee da ngaa jàpp ne nag ñaari at ba ca ak la ca topp kon day nekk 1889 waaye loolu day delluwaat ci la ma waxoon rek ne lu bari ci borom xam dañuy wuute li jëm ci wàllu histoire sëñ bi itam bi ñu ko sañcee nga gis ne dayoom ak yaatuwaayam moo ëppoon Daaru Salaam kon loolu li nga ciy jànge mooy kon mbooloo ma mam àndaloon ca Daaru Salaam mbooloo mi mu andi Touba moo ko ëpp ndax Daaru Salaam nee nañu ba mu fay jógee ma nga fa bàyyi ak Cheikh Anta juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent mu tolloog eh, turu sunu boroom yu tedd yu mag yi walillahi al asmaul husna fad'uhu biha ndax loolu la sunu boroom wax ci alquran kon bu fa bàyyee nit ñooñu kon dafay mel ni am na lu mu bëgg a wone symbole bu ne nag moom daal daraam jëndul sunu boroom léppam sunu boroom tabaraka wa taala la kon noonu la sancee fi nga xam ne moo di Touba ci 1306 ba mu koy sanc itam booba superficie lam ca amoon mu ngi nekkoon 90 mètres ci wàllu guddaay yaatuwaay bi nekk 60 mètres kon tey boo ko doon tollale tey jamono rek espace bu yaatu la na jooju jamono ngir lan mu mën a gën a tëju ak njabootam man leen a gën a toqi man leen a gën a nampatal ci leeri sunu borom yi tabaraka wa taala ndax kat misaal mi feeñoon na ci daaru salaam ndax booba ñu bari laxasaayu nañ ànd ak moom mbolo ma ngi bëgg bari légui nak mu summi ñen ñi nga xamne nak eh, xeyna dañ ko doon seet si ñenn ñi yitte leen taxono juk jóg nak daal di dem Touba nak ak ñi nga xamne nak ñoy ñi ko jégé té tarbiya tax leen juk té te taxo ak ñom mom té won gannaaw aduna won bakkan aduna bayyi lepp ngir and ak sëriñ bi Touba itam waccu way wu réeréer ré ci mom ndax da doon wax euh li tax Touba am ci man way woowu mooy ahabu ilayya mimma siwaahuma tuubaa daal moo ma a lu dul tuubaa ndax lan nee na dama koo def ngir jaamu yàlla defuma ko itam ngir wut euh, daray àdduna du tool bu may bay du fenn fu may commerce du fenn fu may sàmme waaye ngir jaamu yàlla rek laa ko moo taxoon ba ci dëkk yi mu sànc rek ngay gis mu sànc dëkk kat ñaan ne yàlla aaral ko dëkk bi kon boo gisee mat matlabul fawzayni mooy lim jëkk bind ci Touba ak lam cee ñaan ñaan sax bu fi jiit lépp lu ñu war a ñaan rek ngir ak kaaraange sëriñ bi ñaan na ko ci Touba ci bi muy euh, bind Matlabul Fawzayni kon nga xam ne boo jëlee ni sëriñ bi sancee Touba foofu nag da xam ne kon kii nag gën naa xam responsabilité gën naa dëgmal li nga xam ne moo di yoon wi. kon foofu day mel ni Touba dafa nekkoon benn étape boo xam ne waajtaay la ngir nattu yi sëñ bi gën koo mën a ko ndax ci biir ni mu sancee tuubaa sanc na ci biir Daaru Xuddus nga xamante ni ci biir Touba la waaye Daaru Xudus daanaka daf koo jagleloon boppam nga xamante ne ay xalawaatam la fay def di fa wéetal yàlla di fa def ay leetikaafam di fa def ay xalawaatam sanc na aussi Daaru Rahman aussi Daaru Minan yooyu yëpp nag ginnaaw bi mu sancee ca la sanc ci biir nag ay ay ay ay ay kër yoo xam ne da cay dellu moom ci boppam bàyyi njaboot gi ngir xaw a beru ndax nitu yàlla dafay soxla wéet ci boppam ndax déyalig boromam tabaraka wa taala kon ci biir wet googu ci biir deyaale googu ci daaru xurus ci la gisee yonente bi salallahu alayhi wa sallama ñen ñi ngi wax ne ci gént la ñen ñi wax ne kat mi ngi koy gis waaye nekkutoon gént waaye dafa am benn rido bu sew bu dox diggante ak yonente bi te yonente bi dafa àndoon ak waa ahlu badri kon nga gis ne foofu rek dafay mel ni buñ fa taxawee da ngay gis ne kon fii am na luy waaj xew ndax waa ahlu badrin moom du ñu ànd ak yonente bi ci benn jëmm lu dul jëmm jooju borom dayo la waa ahlu badrin tam du ñu ànd ak yonente bi ci benn jëmm lu dul jëmm jooju ku kaweel yitteem la digganteem ak boroomam kon foofu rek li ñu fa war a jàngate mooy ñun itam bu nu bëggee ànd ak sëriñ bi wala bëgg ànd ak nitu yàlla kum mu mën a doon faw li kulli xaalin dañu kaweel suñu yitte waaye duñu doyloo mbaaxub ñooña rek wala mbaaxub kooka tax ñu naan kat diwee sama sëriñ wala kat diw laa yaakaar wala diwa fi raw ginnaaw bi diw moom nga yaakaar ko mu raw fi yow lan mooy sab taxawaay lan mooy sab cër kon raw gi fi raw yaakaar gi ko yaakaar dafay tegu ci réew nga fóot sa xel fóot sa xol fóot sa ruu ndab li nga xamante ne mooy sa dabal jëmm ji nga fóot ko ba bu ca bëggee duy dara dana mën a yomb ndax ñoom kat suñu borom daf leen a jox loo xamante ni duñu ko saña a tenc denc waaye dañ koy jàlle ci ñi nga xam ne ñoo di jaamu yàlla yi kon euh, ci noonu nga xam noonu la sëriñ bi nekkee woon ci Touba nga xamante ni foofu nag moom comme li ma ko waxee léegi ñi ngi xalaat noonu am na luy waaj a xew ndax loolu nga xamante ni mooy li annoncé mooy ñëwug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wa ahlu badrin mu tollok nak at mu ko jitu moy 1887 France am president ba nga xamne moy Sadi Carnot Sadi Carnot moomu nak mo amone ministre des colonies dal di koy fal muy Clément Thomas Clément Thomas moomu nag bi ki ci Sénégal nak ci atum 1889 ci la fekk ay kalamé yu bari yo xamanteni mo bayiko ci chef de province yi bayiko ci chef de canton yi ngir ne am na ku fi nekk koo xamante ni ragal nañ ne bu ngeen ci jógul mën naa mën naa indi ay gàllankoor mën naa indi ay jafe-jafe ndax kat barki démboo Ndiaye Ahmadou Cheikh mi ngi fi woon barki démboo Ndiaye Thierno Souleymane Baal mi ngi fi barki démboo Ndiaye Cheikh Omar mi ngi fi te ñoo ñooñu ñëpp ay tiijaan lañu te dafa bokk ci charte yoonu tiijaan ci li ñu wax ñoom ci seen i wax mooy nit ki dafa war a jihaad te comme moom mi dégg nañ ne jël na wér du tiijaan kon mën nañoo séentu ci moom ne dafay war a jihaad waaye tam ñam àndal ci mbooloo gëm nañ ko gëm gu toll ni ku fa dem di am looy wax ak sëriñ bi man nañoo dal sa kaw ndax xër gi ñu xër ci sëriñ bi te itam loolu lu jaadu la ndax nit ku la nampatal yàlla xamal la yàlla ba bu nuy wax yàlla nga di ko yëg kooku doo ko yemale ak dara lépp loo xam ne da nga gis muy jëm ci moom sa bakkan nga ko jaaye waaye ñoom itam ci rapport yi ñu daan euh, jox ki nga xam te moo di clématoma dañ ko joon wax ni te ñun kat leen di feyeeku lemp dañu xel di dóor di dem ay yëf ndax booba baado lay ñoom ñooy defar yoon yi ñooy ñax lal ko daal di jël euh, li nga xam te ne moo di suuf su dëgër bii di ban lal ko ci kaw mu nekk yoon ndax ñoom amuñu luñ fayee lempo waaye nag ña àndoon ak sëriñ bi nag buñ leen di fayeeku lempo da daan metti ndax ñoom nee nañ luñ ti sëriñ Touba lañ koy jox kon su boobaa nag buñ gisee luy menacé loolu tubaab bi kat ci rôlam moom ngir bëgg a yaatal li nga xamante ne moo di euh, dëkk yi mu coloniser il faut mu jëfandikoo doole digganteem ak sëriñ bi moo tax ba Clément Thomas bi mu ñëwee Sénégal daal di dem nag ci sëriñ Touba euh, ci fekk ko Touba ci 1889 indaale ko ay téere arab indaale ko itam ay kaamil ngir lan ngir sàkku ci Serigne bi na tasaare mbooloo mi ndax jàpp nañ ni kat Serigne bi li muy def ak menace la ci ñoom te fekk na Serigne Touba moom jotewul ak ñoom dara moom jàpp ne daal suñu borom moo ko ñor sunu borom itam moom lay liggéeyal jaaree ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom yoonam nekkul ci àdduna wutul àdduna bëggul àdduna kon du ko xam dañuy xëccu àdduna kon noone nag lañu la euh, kelemato ma waxtaan ak sëriñ bi sëriñ bi gàntal ci ne du mën a tasaare mbooloo mi du mën a yeewi nit ñi ndax kat dafa am mission boo xam ne ci yonente bi salallahu alayhi wasallam da ko jëlee kon du ci déglu kenn daal di ñibbi nag digal chef de province yi ak chef de canton yi fu fi ab murid nekk ci province am wala ci euh, canton na ko génne kon nga gis ne nag murid dañoo commencé nag di dund fitna di dund ay tiis ñuy lakk seen kër yi di lakk seen sàq yi di di di nangu seen i biens yi kon nga gis ne foofu rek mën nañ faa jànge ne kon ku mës a ci yoonu sunu borom boo ànd ak yàlla da xaar ay nattu ndax nag eh, nit ki di wax ne gëm naa rek ñu bàyyi la noonu kon boo ànd ak yàlla moom la muy daj ci ay nattu fa ala kulli xaalin da ci jot ay nattu mën ngaa ñàkk sa alal mën ngaa ñàkk sa njaboot mën ngaa ñàkk lu baree bari ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين واي نك لولا ما ندال تي لولو نك واي نك نيغا خاندي نيو موج موم سونو بوروم نينا ميكتي رك موم موي تيغو سي نيوم كون لا سيرين بي سانتي توبا واي سانتي تي بير توبا ايتام اي كير بو ملني دارو قدوس بو ملني دارو الرحمن اك فو ملني دارو دارو مينام كون نوني تام لا سيرين بي باري تي ليغا خاندي مودي سانتي توبا كون boo jëlee silsilam ni sëriñ bi sañcee ñetti dëkk yi nga xam ne daanaka ci la ñu bëgg tënk waxtaan wi mooy li nga xam ne moo di daaru daaru salaam ñëw ci fi nga xamante ne moo di Touba fa nga cay teg nag mooy Mbacke Bari nga xamante ne kon boo seetee na mu sañcee Touba Mbacke Bari sëñ mi ngi ko sañc ci mi ngi ko ci sañc 31 euh, mai 1895 te saa boo waxee 1895 nag li xel yëpp bokk daje jàpp mooy génnub sëriñ bi. kon dafa mel ne kon fii rek ci Mbàkke Bari da ngay wax ni dafa nekkoon benn euh, site boo xam ne sëriñ bi dafa waroon waajale boppam dafa waroon waa ahlu badrin ngir ñu waajal ko spirituellement ci mu xam yan bi koy xaar ci itam mu gën a waajal jëmmi boppam ndax foofu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaarale nattu yi nga xam te ne koy fekk ci yoon bi mu ne ko man day ruux gi day moomuma ko ndax sunu borom moo ko waye yaram wi day lepp lo xamne atal nako sama pas-pas sama jëm sama euh, njambar duma ko xaj kon nga gis ne étape euh, mbàkke bari bi ko sëñ bi di da naka lam fa am wessul jurum ben wer ngir lan dafa mel ni rek la fa don def kon bam sañcee mbàkke bari itam la ca teggu moy genn bi rek kon ca weeru shawal woowu rek naka la nga cay tegg dotul bari ndax euh, weeru safar la genn dem ci yoon wi te bobu nak fekk na itam sanc gi mu sanc Mbacke Bari mu tolloo ak décret bi nga xam ne ci lañu ci la président France jël ngir sanc li nga xamante moo di AOF mooy Afrique occidentale française ndax décret boobu mi ngi nekkoon le 16 juin 1895 kon sëñ bi bi mu sancee Mbacke Bari un mois rek la ci teg décret bi nga xamante ne mooy taxawal AOF ñu daal di koy jël kon dafay mel ni gis nga suñu borom moom moo lay sant nga liggéeyal ko waaye mooy seet nattu ya tolloog liggéey ba wala mu ñu ëpp ko mu teg la ko ngir pay nga bu ñëwee fàtteloo la nattu yooyu kon gis nga ñi ngi euh, taxawal Afrique occidentale française sëriñ baa ngi ci Mbàkke Bari kon sëñ baa ngi pare ci sañ sañcu Mbàkke Bari bay installé ñi ngi koy convoqué ngir mu war a wuy ji euh, ndar ngir mu war a dugg ci li nga xamante ni moo di yoonu géej gi kon da ngay gis ne loolu nekkul coïncidence dafa nekk loo xamante ni sunu borom noonu la ko bëggee ndax isa aradallahu amran hayya lahu asbab sunu borom saa bu namee ay namee mbir moom mooy créer conditions yi tax mbir mi daa di daa am kon noonu nag la la la la la mbir ma demee ba ca mois de juillet ba nag ñu daal di convoqué mbooleem sëriñ si nga xam ne nag ñoo nekkoon ci AOF muy Afrique occidentale française ñu convoqué leen ñoom ñëpp ca ndar te sëriñ bi jotul woon convocation te la taxoon sëriñ bi jotul convocation mooy yonent bi pareegul ci moom te yonent bi war a sëriñ bi waragul génn ndax amagul ndigal kon il faut. mu yebal keneen koo xam ne moom moo koy wuutul noonee nag la yebale maam Thierno mu dem wuutul ko ba ni mu tàmbalee li nga xam ne moo di tukki bi ci géej gi waaye daal sëriñ bi ci tënk ci ñetti barab yi daal la jaar ci sanc mooy Daaru Salaam te itam mbooloo mi moo laajoon mu sanc Daaru Salaam ngir wéet fa ak ñi nga xam ne mooy ay taalibeem ngir di leen yar ba Daaru Salaam xumbe itam mel ne mars mi ngi dugg ak génn kenn ku ne ak yitteem il faut que mu summiwaat mbooloo mi seddee ca ñooña dem ak ñi nga xam ne ñooñ nag ñoom ñoo bokk yitti ak moom ñoo bokk pas-pas ak moom moom la déglu ci ndigalam mu dem sanc Touba ak ñoom ba mu ci Touba ak ñoom itam ca la jógee ndax Touba def na fa sept ndax foofu la gën a yàgg waaye nag ca la jógee Touba nag daal di sanc fi nga xam ne moo di Mbacke Baari ngir lan waajale ko li nga xam ne moo di tukki bi ci géej gi la ko sunu borom dogale mu dem ci géej gi ba dikkaat andi xéewal li nga xam ne moo di màggal gi ñu di ko ko santale ndax moom moo waxoon ne bés bi kat bu nañ ma santale sunu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu ci dajee ay nattu yu bare bare bare bare ba mu doon wax ne ala kaddin bada lii qabla an araridan mu abada maa ngi di di kat ñu ne daj naa ay nattu may am ngërëm lii kon nañu gën a xam ngërëm loolu te gën a xam niñ koy màggalale sëriñ bi ci njàngum alquran ak njàngum xasida ak tudd sunu borom tabaraka wa taala ak berne kono limone kon kaddu in uridu il islam astatatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ni wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh